asalaamaaleykum mbokk internet 221 people tey ñooy am mbégte dalal suñu kilifa boobu xam-xam koo xamee yaakaar naa kenn dootu ko présenté si réew mi muy docteur Mouhamadou Watt docteur Mouhamadou Watt ñoo lay nuyu. ñu ngi lay fay di la dellu nuyu di la kontaane di la jërëjëfal di la ñaanal yàlla jàmm ak salaam tawfiix di nuyu sa àndaale di nuyu mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci biir réew mi biti réew di leen dalal jàmm ci kër gi di leen naan bismillah. waa waxtaan bi ñu commencé tey tàmbali nañu si wàllum couvre-feu bi gis nañu couvre-feu nu mel si dëkk bi yenn jeunes yi génn jagal leen ñuy taal ay pneu di manifester di xeex ak policiers jàngal nga si am. waaw bala ñëw ci waxtaan bi ñu naan auzu billahi samil alim min ashaytaan rajim bismillahi arrahmaan arrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul ugdatan min lisaani yafqahu qawli di ñaan yàlla yombalal ñu wax ji ndax wax yombul bu ko defee mu def dégg-dégg tamit ca ñañuy déglu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin imaamin nabiin wal wa ala alihi kullihimi bu ko defee wàllu couvre-feu bi nga wax a ah, loolu wax dëgg yàlla ñun ñëpp bokk réew mi te gis nañ ni euh, nguur jël na matuwaay bu jëlee matuwaay nag bëgg a doxal dara ci teg ko ci ay loi jeunesse bi ñoom tamit citoyen lañu yaakaar naa ni war nañ cee mën a ànd gannaaw luy sàmm maanaam wërgu yaramu nit ñi waaye nu ñu mën a gisee daal mooy yàq moom dafa waruta am ndaw ñi nag nañu jëfandikoo seen xel mooy toujours li may faral di wax bañ a jëfandikoo seen doole ndax doole yàlla ndaw la ko dénk bu ko defee nag ñu wàññi yëngu-yëngu yi ndax lépp lu ñu yàq askan bi lañ ko yàqal réew bi lañ ko yàqal état bi tamit xool solution yi nga xamante ni moo gën a baax ci ndimbal ci jeunes yi ci ñu am liggéey ci jeunes yi ci ñu am ci luñ jàpp ci jeunes yi ñu mën a gis seen bopp ci réew mi yaakaar naa ni loolu ëpp solo waaw loolu mooy jàngat biñ ci am. bu ñu xoolee tamit si impact yi euh, seetlu nañ si mbokk mbokk artiste affaire yi euh, jàpp na leen trop ndaxte interdiction de rassemblement yi tax na ñoom géruñu ku si mel ni mën nañu lim Wally ay ñoom Siri Siri Diop ñoom Youssou Ndour yow ban jàngat nga euh, si ñoom seen situation waaw artistes yi moom amuñu dara liñ fi maanaam euh, ñaxtu dara amuñ ko ci ndax bi mbas mi njëkkee am ci réew mi artistes yi la état njëkk jël ay moyens jox leen ñenn ñi sax gis naa ñu jël seeni ay facture yóbbu ngir état bi fayal leen seen facture courant ak ndox. xanaa réew mi réew artiste dong la fecceeg woy kese la. mais yow da nga jàpp ne artistes yi waruñu ñaxtu mais ñoom nee nañ li leen état bi jox sax ñoom jëruñu leen absolument rien ndaxte loo xam ne ñoom lu ñu ñàkk dëgg tànjaay mënuñu ko récupérer te loolu ne état bi lu leen jox dafa néew trop. état bi artistes yi dong nekkuñu ci Sénégal Sénégal daara yaa ngi fi mosquée yaa ngi fi jumaa yaa ngi fi ña nga xam ni bu nit ñi daan dajee julli ca la ñuy dajale la imaam yóbbu këram dépensé ana moo ko xalaat. ana kan moo ko daggal salaire nañ daggale artiste ana ku ko fayal courant facture courant jàkk ji facture ndoxu jàkk ji kan moo ko fay ndimbal gi dafa war a dem ci ñépp baadoole yaa ngi fi ñoo xam ni amuñu moyen seen loxo jotul gannaaw état bi ñooñu la war a njëkk xalaat ka nga xamante ni da taxaw def sa concert ci benn guddi nga am trente million cinquante millions wala cent million kooku lan lañ koy jàppale. nañu ànd ak dal ànd xel àndak teey te xam ni réew mi amul ñoo xam ni rek ñoo ko moom di ko séddoo seen biir am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi ñoo xam ni war na état war na taxaw ci ndimbal ci ñoom bu baax a baax a baax loolu tamit mooy li ma ci mën a wax waaw. Euh, suñu société boo gisee nit ñu nekk am lu leen a yëtal. ku nekk euh, li ngay dugg ba nga xam si euh, si lan ngay dal. Mm-hmm. muy wàllu seet. Mhm. yow lu ñu mën a wax si wàllu seet. waaw wàllu seet moom euh, yaa ngi doog a ñëw ci lu am solo ndax ñun ñu fàttali li ñuy def muy science suprême islamique bu ko defee tey sama mbokk yi nga xam ne tam dañ ñuy laaj léeg-léeg pour ñuy wax ci français pour ñu mën a xam wala ci yeneen langue yi pour xamal leen ni euh, ñun wàllu ñaan muy science suprême islamique lu ñu xam la lu ñu man la lu ñu jàng la. te ci wàllu seet gi am nañ ci ay pàcc yoo xamante ni ba ci ëpp na juróom-ñaar ba juróom-ñeenti seet bu ko defee mën na la limal wàllu listixaar dañ koy def kooku seetu baatin la da ngay fanaanoo mbiru nit ki yàlla moo lay xibaar directement ci mbiru nit ki mu am loo xam ne wàllu xam-xam la zaxir la da ngay tomb xool mbiru nit ki ci ram li loolu mooy ñenn ñi li ñuy wax xeetu gisaane kon listixaar ramli bokkul. ñaar yooyu bokkuñu bi seetu xam-xam la ci zaahir bi seetu xam-xam la ci baatin bu ko defee mu amaat yeneen xeet ay wàllu tabia mooy mbiru nit ki fu mu féete bu dee ay mbiram ci ndox la nekk wala ci suuf wala ci jaww ji xatta ba ci maanaam safara yooyu am na mu am yeneen wàllu rawaxaan yi dañ dañ koy xool pour xam ay rawaxaanam mu am beneen xeetu seet boo xam ne wàllu biddéew bi ilmu nujum kooku tamit dañ koy xool mu am ba tey ci wàllu lawhul xayaat ak lawhul mamaat muy maanaam ngiru dund nit ki ci chiffres yi dañ koy xool mu am loo xamante ni tamit muy li ñu naan mufradaat ak muzawijaat yooyu tamit ci chiffre pair yi ak impair yi lay dox yooyu tamit dañ koy xool maanaam li ñuy yàlla dénk ci wàllu seet mënun lay limal lépp waaye nag dañuy xool la nga xam doomu aadama bu nekk lii war na ci yow ñu defal la ko settantal say mbir bu boobaa loolu la ci wax du deñ mu am beneen xeetu seet boo xam ni wàllu baatin la boo ñu woowee rek ci say kàddu wala ci téléphone dañuy am yëg-yëg te dañuy xam lan moo la gàllankoor léeg-léeg ñu wax la sax te jubloowuñ ci seet bi loolu am na. Euh, docteur Mouhamed léegi bu ñu duggee su wàllu faj. Mhm. dafa am concept bu ñuy dégg te ñun dañuy euh, comme sama daan yi nga xam jànguñu. mooy wàllum bacharia. Mhm. mooy bacharia. waaw euh, je m'excuse avant may ñëw ci loolu. Euh, je, je le en français, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, ce qu'on fait, ce sont les sciences islamiques. Donc, à m'entendre parler, vous saurez très bien que ce ne sont pas des choses qu'on tâtonne. Madame, donc, ce sont les sciences suprêmes islamiques, ce sont les sciences divines qui sont au-dessus de toutes les sciences. Parce que le monde est fait de lois et de sciences. Le monde est fait de mathématiques. Dieu a créé le monde et l'univers à travers des lois et des sciences et des mathématiques et des noms divins et a envoyé son prophète et ses prophètes. Donc, les sciences islamiques, ce sont des types de sciences qui sont liées au nom divin et à des prières, le Coran et aussi à ce qu'on appelle euh, des incantations, c'est-à-dire des lectures faites euh, en psalmodiant le courant et aussi en faisant des intentions, parce que le prophète a dit Ad-du'a mu'min li akhihi mustajab. Euh, quand on fait une prière pour son frère, Ad-du'a muslim li akhihi. Quand un musulman fait une prière pour son frère, cette prière-là, qu'il qu le sache ou qu'elle soit à son insu, elle sera exaucée, Inch'Allah. Et Dieu a dit à, son tour aussi, Ad'aouni astajiblukum, demandez-moi et je vous accorde. Donc, celui qui n'a pas ce qu'il veut dans la vie, c'est parce que il de la hauteur. C'est parce qu'il a eu de la grandeur. C'est parce qu'il ne s'est pas supplié, il ne s'est pas prié pour Dieu. Et je vous dis une chose, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en France, partout dans le monde, les Américains, Le président américain avait dit un jour, le corona est là, il nous reste qu'à prier. Si lui-même il a dit ça, donc je pense qu'il n'y a plus de commentaires que j'ai fait là-dessus. Et I come to speak in English for all my peoples out of Senegal. They understand English and the Gambians also. So what I'm doing is the science of supreme Islamic It's a kind of pry God to solve the problems of people. So they ask me sometimes to speak English. I can also speak English. I can also speak French and many language because what I'm doing is things I know, really know, and extremely very important. in life. So if you have your problems, God can solve all problems from Quran, Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's all I want to tell. léegi boo déggee yi. Ah. ngeen xam se c'est pas pour ñu koy woowee docteur. Mm-hmm. ndaxte français bi macha allah anglais macha allah te nekk tamit da ngay wax yeneen langue tamit. Mm-hmm. mais mu ngay kapoon sama question ñëwoon si wàllu bacharia. waaw bacharia mooy wàllu yaram. nit lépp loo xamante ni feebar la ci doomu aadama nga xam ni da koy metti di ko mettital muy zahir wala baatin dafa am ay xeetu feebar yoo xam ni zahir la parce que nit booy wax ci xam-xam da ngay wax lu leer nit ñi mën a dégg dafa am feebar yoo xam ni zahir la maanaam tey jii da lay metti rek parce que dangaa sonn nga dox ba naaj bi jàpp la sa bopp metti léegi nit ki la mën a xam feewu la waaw ñun dañ koy xam bu fekkee jàmbat nga ñu feebar ñu xool mbir mi danañ xam ni lii baatin la wala zaahir la bu dee baatin dañ xam ni ngelaw seytaane moo ko waral wala rab moo ko waral wala liggéey moo ko waral walla sëf moo ko waral léeg-léeg nit am lu ko lu muy jàmbat ci yaramam fekk cat a ko waral wala bët wala làmmi na ko waral yooyu yëpp am na wala nga jib mbooloo ci xew am ku la ci xool xoolin boo xam ne baaxul moo tax yonent bi sallallahu alayhi jàngale mu ne boo xoolee benn yoon nga ràññee li nga doon xool jarul ngay dellowaat sa xool di ko ñaareel maanaam tey ji dafa am yenn xeetu gëstu yooyu def doomu aadama mën na koy indil gàllankoor waaye ba ci ñoo xam ne réew mi ñëpp xam nañ fi nekk mën ngaa joggi ci liggéey jàmbur mën nañu sànni korte mu dal la mën nañu sànni liggéey bu bon mu dal la yooyu yëpp ay feebaru baatin la buñ ko xoolee dañuy xam ne lii baatin la ñu dindi ko te dañ koy dindi à distance mu am yeneen yoo xam ni wàllu maanaam euh, feebaru zahir la loolu comme tey jii nga activité bu bëri rek nga sonn euh, bu ñu xoolee dañuy xam ne lii du feebaru baatin zahir la mais am na cee ñaan yoo xam ni mën na ci dara yooyu yëpp dañ koy faj. léegi man dafa am ma bëgg nga leeral ma. Mhm. yaay wax feebaru zahir baatin. Mhm. loolu nan nga ko mënee fajee à distance. waaw xam nga bu dee feebaru zahir bu dee feebaru zahir bi maanaam tey jii lu lay metti ci cër walla ci loxo wala ci tànk. mais yàlla dara tëwu ko ndax ci ñaan yi ñu yor maanaam ci awraat dafa am ñaan yoo xam ne ñu fàttali ñun suñuy ñaan yépp du passé trois jours lépp lu ñuy ñaan mu gën kaa néew wala bari du passé trois jours parce que amuñu jot sax xalwa sept jours amuñu jot ñaanu kaa xalwa quarante jours parce que dañuy wax allahumma innahu abduka moom sa jaam la yaa ko gën a xam yow yàlla yaa gën a xam li nekk ci moom muy zahir aw baatinan bu mu ci mën a doon dañ ci ñaan liggéey ci yàlla faxas ko mu set wecc loolu moom doo ko ci yëgati loolu faj à distance la faj waaw bu dee ku jigéen ki innahu imaik sab jigéen la yow yàlla bu dee ku góor ki la innahu abduk bu dee jaam ju baax la wala ba ci njëgal yàlla nit mën na ñaanal yàlla yàlla nit yàlla jéggal ko déggoo li ma wax de loolu xam nga baatin la ngay def say bàkkaar nit ñaanal la yàlla yàlla na la yàlla jéggal parce que sa làmmin takk na bàkkaar ba nga xam ne boo jaakaaroog yàlla xëy na yàlla jéppi na la ndax làmmin bu yàlla nangu ñaan yàlla rek ko xam <laughs> man ngaa dajeeg nit mu ñaanal yàlla na yàlla yóbbu àjjana te yaa ngi def lu bon yàlla yërëme la ci jaare ko ci barke ci làmminam moo tax ñaan bu nangu yàlla rek a xam fu mu dëkk. est-ce que loolu la ñuy wax euh, baatum ramu baatu ràmm waa ràmm am na bokkul ba tey xam nga ñaanal la ki la ñaanal mën na baña xam ni ñaan bi nangu na fekk yàlla nangu na ko ndax am na lu yàlla def ci moom te xamu ko mais rammu nag moom dafa am ñoo xam ne yàlla da leen koy cërale yow mal da leen koy cërale am na ñoo xam ne yàlla da leen koy cërale yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag moom la ko yàlla cërale moom tamit mu am ñoo xam ni ëllëg mën naa taxaw ne diw wuutuma ci lii diw wuutuma ci lii waaye loolu moom moo koy joxe dégg nga loolu mooy ràmm maanaam tey ji nit ki day dem ba ñu war koo indil jafe-jafe ñu mu intervention ñaan yàlla ñu bàyyi ko loolu la. Euh, léegi bëggoon naa nga ñëw ma euh, si wàllu impuissance sexuelle. waaw ndaxte société bi mu ñu seetloo impuissance sexuelle moom loo xam ne sonal na góor yi trop. waaw wàllu impuissance sexuelle moom loolu euh, bëri na ci feebar yi ba tey am na ci loo xam zahir la am loo xam baatin la xam a tubaab bi dañuy wax stress da koy indi. waaw am ñoo xam ne dañuy stressé rek stress bi nag day am lu koy waral ñun buñ ko xoolee danañ xam ne kii euh, dang-dang yi bu bëri beeg problème yu bëri xalaat parce que di tamit xel la ak xalaat bu ko defee am na nuñ koy saafara incha allah dana am dal parce que léeg nga am ay mbir yoo xam ni biddéew yi nu ñuy tëddee noo xam ne yow doo toog doo comprendre sax buñ la woowee tey fii suba ginnaaw suba yaa ngi fële doo comprendre mbiri nu mu demee te pourtant amoon na moment boo xam toog nga un mois génnoo demoo fenn <laughs> mais yëngu-yëngu moo waral dara nee nañu lu yëngal garab gi moo ëpp doole garab gi yaakaar na waaw bu ko defee loolu ci ay xeetu maanaam mbir la yoo xam ne ci biddéew yi la bu ko defee biddéew yi mën nga am jafe-jafe nga stressé jamono yooyu nga occupé trop nga stressé bëri ay problème bu boobaa sa ngóor day wàññeeku am ñoo xam ne ñu néew kàttan ci loolu am ñoo xam ne màgget moo leen koy yóbbee ci naturellement feebaru zahir la lu naturel la dañuy toll ci at boo xamante ni yow dangay ngay néew kàttan. léegi kooku neex na faj. kooku neex naa faj parce que am na loo xam ni renforcement la dañ koy liggéey am loo xam ni tamit lu lay régénérer la maanaam tey ji ñaan la boo xamante ni mboolem xeetu jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ci sa yaram fa nga newoon euh, démb. dala fay delloo bu dee dem nga ba am cinquante ans dalay jox capacité pour am vingt cinq ans loolu am na ci ñaani waaw da koy ñaan yàlla yàlla dara tëwu ko bu ko defee yàlla moo ne wa lillahi al asmaul husna man maay tur yi ñoom ñooy man fad uhu biha woo leen ma ci wadaru alladina yulhiduuna fi asmaihi bàyyi leen ñooñu di sikki saak ci sama tur yi waaw parce yàlla man na loolu te am na ko te ci secret science islamique am na nu ñuy doxalee nit ki da nga gis koo xam ni màgget la woon sax am na ñaan yoo xam ne da koy rajeunir boo ko gisee sax yow boo ko daan màgget la mais boo demee ba jamono gis ko dafay xaw a jeune ci yow mu am yeneen yoo xam ne da nekkoon jeune ñu ñaanal da lay yéegal nga xaw a mel ni mag da lay jox jëmm ba ci kurus boo bàyyee xel xale buy liggéey kurus lu bëree bare bare balaa yàgg rek day am ay moromum pa dañu naan ah kii de paa yi rek lay àndal fi mu toll nii bu yàggee ànd ak ñoom mu mel ni ñoom. dafay am jëmm charisme boo xam ne alxuraan ak turu yàlla da koy tab tàbbatal ci yow maanaam dafay def effet ci yow. waaw docteur Mouhamed Wade yow ku la xam. <laughs> xam la sa wàllu polyvalence. Mhm. léegi ñu dugg sa wàllum ñaan. Mhm. ndaxte suñu mbokk internet yi surtout ñu nekk si diaspora lu bëri. Mhm. mooy wàllum kayit. yow ñëw noo mën a def ak ñoom. waaw wàllu kayit am nañ tur yàlla boo xamante ni lépp luñ ci dugal da wuyu tey jox ñu turu réew ma nga nekk préfecture ba ngay jëlee kayit yi moom lañ soxla tur bi ak sa tur yi nga xam ni nag moo nekk ci kayit yi nga déposé loolu buñ ko boolee aajul ñu yónnee la dara buñ ko boolee ci tur yàlla tënk ko ne la demal boo demee dañ lay jox. loolu fi nga toog ne yow loolu mën nga ko def euh, te nit ko daga mu euh, dugoo mën naa ko def sax te du bind dara booba gën a gaaw bu ma joxee tur yi mu wax ma turu préfecture bi ak turam fa la war a jëlee kayit yi am na lu ñuy liggéey ci turu yàlla ci kurus mu dem foofu ñu jox ko kayit loolu lu gaaw la te lu wër la ismullahil azam la am na ismullahil azam yoo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi ne man da allahu bihi ajabta man saala allahu mu ne ku ci laaj yàlla yàlla jox la ku ci ñaan yàlla yàlla may la du dellu kooku ci kurus la aajul sax am na ci ñoo xamante ni dañ ñuy wax rek xam nga dafa am foo xamante ni moo taxit wax dafa neexut a dégg ndax am na loo xam ne xam-xam la danga koy jàng mais am na loo xam ne mayu yàlla la nit woo nañu ba tàyyi wax ñu problème am ba ñu waxee problème jëruñu kurus defuñu ñaan dañ ko ne problème boobu jeex na daf ñuy woowaat ne ñun de loolu jaaxal nañu sëñ bi la ma ci tiitoon yëpp dara mujj ci am waaw parce que dégg nañ ko rek waaw dafay am parce que bu fekkente ni am na tiitaange ci moom mu wooñu mu jaaxle ñun ñu am ci yëg-yëg tiitaange gu toll noonu ñu dogg fa suñu borom loolu du ko dal aajul ñu bind. ku xam ne période <laughs> ñuy dund tam mën nañu wax crise la. Uh-huh. Uh-huh. ndax ñu bëri seen liggéey société ñu bëri duñu si am jafe-jafe. Uh-huh. ñenn ñi seen liggéey yàqu na. ñenn ñoo xam am uh, seen uh, amatuñu liggéey sax mën nañu wax. léegi yow ñooñu. noo mën a jëfandikoo koy ñoom. waaw koo xamante ni da nga am yàqu-yàqu ci sa wàllu liggéey kooku dañ lay delloo ci sa palaas nit woo na ma fi wax ma loolu ndeysaan uh, ñu bàyyi ko liggéey mu woo ma wax ñu ko ma ne ko di nga delloo. mu toog presque quinze jours mu wowaat ma sëñ bi ba tey woowaguñ ma pourtant li ma ko wax lu lu xam ni bu ma bu ma ko waxoon ni danga naan lii lu ñàkk solo la moom laa ko wax ne ko wutal lii rek def ko. loolu mënoo ñu ko wax. <laughs> mu ko defee danaa ci ñëw ba mu ko defee ci saas yi mu toog ba ngoon woowaat ma ne ma gars yi de woo ma ne ko woo nañ la mu ne maa ngi nii di fa dem de ma ne ko da nga dellu sa liggéey mu dellu ci liggéey waaw loolu am na lu lu yomb la fa yàlla yàqu-yàqu moom bu amee na nga ci teel a jóg waaw na ci teel a jóg c'est-à-dire que boo bàyyee mu gën a yàqu day gën a dem te mooy li may wax toujours dara bu commencé am comprendre to da ngay gaaw nga feree ne mbir mi bu dul loolu day tegaloo yàqu-yàqu day tegaloo yàqu-yàqu ci sa alal lay njëkkee. commencé ngay ñàkk lii commencé ngay yàqule lii muy ñëw di ñëw di ñëw boo ko wul day ñëw ba ci sa jëmm da ngay xëy tëdd wala nga xëy am lu la dal ci sa yaram parce que lépp li la daan fànkal dem na ba pare yow yaa ci des waaw ah, da nga koy fereene yàqu noonu lay demee moom. <laughs> bu ñu xoolee mooy suñu mbokk commerçant yi jaaykat yi. Uh-huh. ñu su bëri dinañ boo xamee écouler seen produit pour ñu mun ko jaay. Uh-huh. maanaam ah, dafa mel seen mbir yi amul bayre waaw waaw xam nga mbir boo bëggee tàqali ko moom. yonent yàlla Moussa mosoon na wax man naa fi wax secret bi ndax yàqul dara xam na suma mbokku sëriñ yaa ngi may déglu ba an ba mu ànd ak uh, xudar xudar ne ko haada firaaqu bayni wa baynaka mu ne ko tey laay tàqali koog yow secret buñ ko liggéeyee marchandise boo yor doo doo doo moom day dem mënoo ci dara mu am leneen loo xam ne wàllu kër wala suuf wala oto wala ngay jaay mu tëla Eh, yaakaar naa ni sama oto bu màgget boobu nga naan fekk ci kër ga jaar na yàgg na waaw dama ko gaaroon foofu dem na day dem loolu bu sonal sa bopp buñ ko defee mbir mi dañ koy jënd day soppeeku xaalis ñu jox la ko matériel bi dem loolu lu gaaw la mu am leneen loo xam ne wàllu xëcc la ci place buñ ko defee place boobu nit ñi dañuy dugg rek jënd di dem mu am loo xamante ni wàllu maanaam bayre la rek boo xam ne sa yaram lay nekk bayre bëri na ay façon am loo xam ni sa yaram nday neex loolu jënd mu sotti foo dugg mu sotti looy jaay mu jar waaw mu am bayre bukki am bayre yaay am yeneen xeetu bayre yoo xam ne dañ ci ñëwaat incha allah. <laughs> bayre ak wërsëg waaw xam nga bayre ak wërsëg du benn ak siiw du benn ñetti yëpp duñ benn wërsëg moom alal la rek yàlla da lay sédd ci ay alalam yàlla moo ne wa lillahi xazainu samawati wal ardi mu ne man yàlla maa moom magasin asamaan yi suuf si wërsëg bi boo ko yaatoo moom xewal bu ne mën na laa dikkal waaye bayre spécial la nit mën naa am wërsëg te du am bayre nit ñi dañ lay sopp xam nga mën nga am wërsëg am alal te nit ñi bëgguñu la bëri nañu fi am alal ñoo xam ne buñ politique kenn du leen xool bayre nag li muy def mooy nit ñi nga dugg ci seen xol yi yaa muqallibal xuluub ka nga xam ni mooy wëlbati xol yi day wëlbati xolu nit ñi ñu bëgg la ñu sopp la nga am bayre ci ñoom xaw ma ndax dégg nga wax ji loolu est-ce que mënuñu ko tojal. waaw loolu wax naa la ko yaa mu muqallibal qulub kooku alxuraan la tur yàlla la ci tur yi la bokk mu am yeneen al fu ñëpp xam nañ ko yeneen al wadudu ñëpp xam nañ ko ay tur yàlla ay asmaul husna li may wax génnul alxuraan bu ko defee am na nu ñuy liggéey yenn tur yàlla yi bu soobee yàlla nit ñi moom doo am ku la ciy bañ. Euh, mënuñu woon tëj émission bi te waxuñu si wàllum kër. Mhm. te ko nekk ne góor ak euh, mooy wàllum sëy. Mhm. te eh, gis nañu eh, mariage yu bëri dafa am problème. Mhm. est-ce lu dagan la. waaw nopp moom dagan na nopp pour nit ki bëgg la dagan na parce que lépp luy boole moo gën luy tàqale yàlla moo wax wabtasimu bi hablillahi jamian walaa tafarraqu na ngeen mooy ci buumu yàlla gi ngeen booloo ak jamaatul rahma mu ne booloo yërmaane yàlla la boo boole ay nit yërmaane yàlla la. parce que noob bi nga def noonu weesul takk sëy koo def pour nit ki ñu ñu sëy noob nag dafa am xeetu noobam tamit noob boo xam ne ci lu dagan maanaam tey jii dangaa def li ñuy wax tamsaj maanaam ñaari nit yoo xam ni dañoo noonoo woon nga boole leen wala ñaari nit yoo xam ni dañoo bëggante nga boole leen wala kenn koo xam ni dafa bëgg a am jabar nga boole ko ko wala kee nga boole ko loolu wàllu jam ula li may wax am na ñu ko xam bu ko defee nag képp koo xam ne da nga bëgg a soxna mute la boo ñëwee da nga koy am képp koo xam ne tamit danga dem sax ba ay mbokkam a bañ buñ ko defee bu soobee yàlla kadaan bañ moo lay ne kaay jël si sa soxna loolu lu ñu def defaat la mu jar riban la ba am na ñu ci tudd seeni ay doom loolu macha allah sant yàlla la. dafa am ñaar dafa am boo xam ne dafa jege trop noot si dëggante mooy wàllu noot. waaw wàllu noot. noot nag ak noot bokkul noot wàllu qaxru la muy wàllu forcé maanaam tey jii nga noot doomu aadama rek mu def li nga bëgg loolu mooy mooy mooy noot mais loolu duma ko digle parce que am na ay xeetu noot yoo xam ne dafa tàng maanaam bu forcé doomu aadama bi ci loo xam ni moom bugg ko mën na ko yàqal lu bare bare bare bare waaw loolu am na moom moo taxit man bi ma gënal ci wàllu euh, noot bi ma maye ko la nal bi moo gën maanaam dalay tàggatal nit ki maanaam kooku nit ki mooy dem ba tàggatu ci say mbir rek loo ko ci loo ci bëgg mu koy def moo gën nga koy dugal ci xaxru am na ñu bari ñu ngi liggéey nag ci erreur dañuy dagg ay tur rek di ko dugal doomu aadama yi di leen indil jafe loolu nañ ko moytandiku lépp loo xam ne dafay nooyal nit ki ni wëtteen lewetal ko mooy li gën boo amee xale boo xam ni parce que noot bi lu tax mu am njëriñ mooy boo amee xale bu dëgër bopp sa biir kër buy tox yàmba di door nit ñi di xeex di xuloo di màndi di def lu ko neex kenn mënu ci moom dara dañ koy nooyal ni wëteen ci tur boobu ma la wax léegi <laughs> waaw moom moom nemm lay def ni xar xar buy mbëkki sax wala nag buy mbëkki bu nekk ci gétt ñu ragal ko buñ ko defee ci loolu danaa nemm da ngay gétt bi génn du mbëkk waaw loolu tur yàlla la. Ah, docteur Mouhamadou Wade ñun waa 221. ñu nekk si dala bi. di la uh-huh. bàyyi nga tàggatoo suñu mbokku internet waaw ñu ngi leen di tàggatoo di leen jëfal bu baax di leen xamal ni walan yuxayir allahu ma bi qawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim yàlla nee na man duma soppil benn xeet wala benn peuple wala benn doomu aadama dara ci ay mbiram lu dul moom mu jóg bëgg coppite googu mu far lu ñaanu man yàlla ma fekk si ko kon nag juñ ñu doy na borom xel. nit ki du naan dara du dara dara dara la de da ngay jóg nga def dara ñu defal la dara nga gis dara woowule nga mën koo def dara mu nekk dara ci sa poos incha allah jërëjëf <laughs>